mbokk salaamaaleykum ginnaaw bi leen nuyoo ziar leen rafetlu seen ànd ak Ablaye Naar mbokk yi élection présidentielle 24 mars 2024 jongante tànn njiitum réewum Sénégal ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars atum 2024 mbokk yi noppi nañ ca njuréef yu njëkk yee génn na maanaam Euh, résultat yi nga xam ni moo premier tendance yi waaye dafa mel ni li fës jamono ji moo di Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndam ci premier tour wërngal wu njëkk ba ba tax na taxawaay bi nga xam ne bu sell bi di Touba am na ko ci ndamal Bassirou Diomaye Faye ndax njuréef di résultat yi nga xam ne moo ko ci dëkk bu sell bi Touba bi mu génnee la ñëpp ne jeex ndax Touba Bassirou Diomaye Faye ndam lu kawe lool la fi am ak diiwaan yi ci biir réew mi bitim réew ba tax candidat yu bëree bëri jot nañoo ay communiqué ngir ci ndam li nga ko ba tax na lu bari ci askanu Touba naka noonu itam mbakke jug nañ di màggal ndam li nga xam ni Bassirou Diomaye fay am na ko comme ni nga gisee noonu le lu baree bari ci askanu Touba génn dem jowali Mbàkke ànd ko waa Mbàkke département bu Mbàkke jamono ji ñi ngi feete di màggal ndamal Bassirou Diomaye Diakhar fay ni mo baye ko ci dekk bu sel bi Touba bi mu genné la ñepp ni jeexna ndax Touba Bassirou Diomaye fay ndam lu kawé lool la fi am ak diwani yu fasantikoo ci biir réew mi bitim réew ba tax nak candidat yu bari bari jot nañu genné ay communiqué ngir njukkeel Bassirou juma Diakhar fay ci ndam li nga xam am nako ba tax na lu bari ci askanu Touba naka noonu itam Mbàkke jug nañ di màggal ndam li nga xam ni Bassirou Diomaye Faye am na ko comme ni ngeen gisee noonu le lu baree bari ci askanu Touba génn dem jowali Mbàkke ànd ko ku waa Mbàkke département bu Mbàkke jamono ji ñi ngi feete di màggal ndamal Bassirou Diomaye Diakhar Oumar Tall